saa yu waxee ne inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon nun dey yàllaa nu sàkk moom nu te lu ko soob ci nun rekk mu def te it ci moom la ñuy dellu mu fay nu sunuy jëf bu ko waxee teg ca yàlla yàlla nag ma fay tuyaaba ci sama musiba mi wotteele ma ko lu ko gën faaw yàlla defal ko loola am na ku ñuy wax ummu salamata ba jëkkëram faatoo di aboo salamata yonante bi ne ko waxal loolu mu ne ko fu may jële ku mel ne abu salamata waxuma la nag ku ko gën yonante bi ne ko wax ko rekk naka mu ko wax yàlla defe ko noona ndax yonante bi ci boppam moo mujj yore ummu salamata moom muy soxnaam te ku ne xam na ne yonante bi moo gën ci ñi yàlla sàkk wa min kamalihi bokk na ci matuk muñ nga isan taraahu ndem gaar na ko isan taraahu amrun mooy su ko mbir gaaree mooy maxnaa mi kitmaanuhaa nëbbu musiba ma kama niki koo xam ne xafaahu jàmbal na ko allahu yàlla la gën a mat ca muñ gën ak mooy lala dal nga muñ ko nëbb ko bañ koo jàmbat lu may yàlla kenn bañ koo xam mel ni sax yàlla dalaa tegut tiis woowee loolu moom moo di muñ nga gën a mat te it gën a jafe wa minhu bokk na ci muñ sabru shaxsi muñug jëmm ja xammaa walis la nga xam ne nuxiya tereef na ko waxan jamihi shahawaati ak walis mboolem bànneex ya fa yan na nga wattu muñ bañ a jege lañ ko tere ci muñ yi gën a màgg la bokk waaye nag muñ ba bañ a def la ñu tere terek araamal lu war la te muñ ba bañ a def la ñu tere terek sib rek lu ñu sopp la muñ it bañ a topp sa bànneex xanaa seet la gën ci yow rek bay tax nga am ngërëm te bañ a topp sa bànneex moom itam muñ gu ñu sopp la waaye gu ama am daraja la mën nañoo wax nag ne muy sàngam farata la te du tee muñ ga ñu sopp ëpp ko ngëneel muñ musiba moom mbaa yàlla may ko xéewal ak jàmm te teewut mu muñ ba taxaw ca nam ci war a taxawee xeeti muñ yooyu la mu doon doon lu ñu sopp ka koy man faaw day am yaqiin maanaam day wóolu yàlla ak àllaaxira ak la mu diggee ca fay ga ca àllaaxira ba mel ne lu mu jàkkaar lool mooy tax mu mën a rafetal muñ gu demee noonu te yaqiin moomu nag dafa jafe lool ba daanaka ba weesoo yonante yi as siddi xoona dëgg laa kon yi rek ñoo koy am dëgg-dëgg ba tax yonante bi di ñaan ci addis ba naa yàlla may ma ci yaqin loo xam ne dana ma wayafalal musibay adduna yi xam ne kon yaqin moom lu jafe-jafe la te mooy tax a man muñ gu rafet googu was sabru ak muñ an radiyatil afkaari wëlis way yamaa yi xalaat ya ar radiyu ngay wax aji bon waaye rek lu ñàkk solo lañ ci ëpp jublu ci ay béréb wa ni amatin ak xéewal aafiyatin ak jàmm lil baar yi ngir aji bind ji te mooy yàlla bokk na ci xeeti muñ yi ngay moytu di xalaat xalaat yi nga xam ne day woyof ci sa bopp nii rek waaye amalu la benn njëriñ te mën nga cee jeexal sa waxtu yu yàgg yàgg ndax moom day woyof ci sa bakkan doon sax nekkul xalaat yu bone bon noona it waaye du xalaat yu am njariñ rek saye boo di ko moytu ndax nit li muy xalaat da ko yëngal jëme ko ci jëfe ga te it nee nañu boo ko dee seet saye boo rek muy xalaat ci mbirum boromam ak lu ko amal njariñ ndax li ëpp ci mbir yi benn muy loo xam ne wéy na ba noppi ba yàlla dogal ca lam cay dogal ba àggal jekk di ci xalaat sànq sa waxtu la wala muy loo xam ne ak seegut waaye ba tey yàlla dogal na ca lam cay dogal ba àggal boo ci àggee rek gis ko kon loolu it jërte jekk di xalaat say boo rek waxtu wa nga toll ngay xalaat la la cay amal njëriñ te di ca góorgóorlu dañ koy takk ci baati arab di wax naa ixtilaajul xawaatiri laa yakoonu illa fi faitin laa tadaaruka fiihi la aw fi mustaqbalin laa budda an yaxsula minhu maa huwa muqaddar kon fa haada kulluhu tadyiixu zamaan ba tey muñ ci xéewal ak jàmm jim booleeg muñ xalaatu yemaan yi niñ ko xewoon léegi da ngay defee ne jàmm ak xéewal deesu ca muñ ba ba àll yu ne yàlla may ma ma muñ yonante bi ne ko yow kat da ngaa mel ne kuy ñaan musiba waaye teewul ca dëgg-dëgg am na xeetu muñ gu jafe-jafe ci bu jaam bi amee xéewal ak jàmm dana ko wax balaa yàgg moom mu ëpp daraja ci mboolem xeeti muñ yi wayata xaddaa dana jàggati moom asabru muñ li salaasatil xoroofi jëm ci yetti araf ya fa man yuraaxiha ku sàmmoonteeg ñoom maxan mboole seen yekkun kon mu nekk zarifan di aji ñaw fa awwalun aji jëkk xalaa mooy xalaa wa thaanin aji ñaareel xan moo di xan kama fii naka nga xamee ne fii saalisun aji ñetteel la laxaa ñeel leen la daaman fakk nga xam ne xalima xam na jàggati boobu mu wax ak taxaddi ci naxu mooy baat yi firi xew-xew da ci am yoo xam ne xew-xew ba faaw day weesu ka ko def jàll ca keneen nga xam ne ka ko def mooy faaxil bu dee ci naxu kam jàll ca moom nag moo tudd maf'ulun bihi ci yi jàng naxu daañu koy nasab waaye da nga gis nag foo xam ne la nekk maf'ulun bihi ma faaw dañuy jël aw araf ci xoroful jarri man ko koo jotulee fi xal ba bam jot ca waaye fi xal ba mënta jekki-jekki rek song lay maf'ulun bihi ma daal di koy nasab ci misaal mbar romb na ñàkkut aji romb muy ko def xew-xew ba ak kam romb mbaa la mu romb muy ma foolun bixi ma waaye nag loolee di ma foolun bixi ci mara dañ cey def baa wala xalaa waaye duñ jekki-jekki nasab ko doo wax marartu raju la wax marartu bir rajuli wala marartu xalal xariyati sabara noonu lay def du ñàkk ku muñ ak la muy muñ la muy muñ nag mën nañ caa dugal xalaa mën nañ caa dugal xan mën nañ caa dugal fii wa tax mu ne baatu ak sabru muñ dana jàggati ci wax yu naxu jëm ci yetti araf te mooy xalaa ak xan ak fii mu jëkke baatub asabru muñ bi ci xalaa toppee am mas tibaaruka ndaal sag muñ alal xibaadati ci jaamu yàlla maxal masaay bi ànd ak musiba ya fa xayrul aadati mooy ngën ji aada maanaam mooy ngën ji baax fa rabbunaa sunu boroom yakutubu dana bind siinan siin suwaw muy ñetti téeméer muhmal bu di buñ neenal buñ ne buñ neenal mooy ñàkk koo tomb rek muy siin suwaw si ma waxoon darajatan ci daraja li man ñeel ka nga xam ne xadd xasala am na lëxoo ñeel ko asabru bu ci xalaa toppee dañ koy delloo ci asabru xalal xibaadati wa xalal masaa'ibi muñ coonab jaamu yàlla ak muñ musiba yi la yàlla teg ci la ñuy delloo xalaa muñ gu mel noonu nag ku ko def yàlla bindal ko ñetti téeméeri daraja wa sabru naa sunu muñ xan shahawaat ni walis ay bànneex li salaami ngir yàlla mi mucc ci ayub wa fikratin ak xalaat radiyatin bi aji yamaay mbaa nga ne buy aji bon waxan xaraamin ak walis aji araam yakkutub dana bind minhu ci moom allahu yàlla xaa an xaalonk moo jaman guddi guñ tomb la neexee ne xaa an juróom benn téeméer rek mu gën a gaaw daraja tan ci ay daraja li man ñeel ko nga xam ne bun timaayin boroomu askanu la ilayhi jëm ci moom bu fekkee nag baatu asabru muñ xam da caa topp dañ koy delloo kon ci muñ xeeti bànneex yi rawante na lu araam doonte sax du bànneex ak muñ xalaatu yemaay yi nga xam ne nit mën na cee jeexal waxtu yàgg-yàgg te mu woyof ci moom lool xeetu muñ gu mel noonu am na daraja lool ndax ku ko def yàlla bindal la juróom benn téeméeri daraja nga xam ne kon ñaar ca na bee nga weesu woon wa sabru muñ fi aafiyatin ci jàmm wa fi niamin ak ci ay xéewal ajallul anwaax yi mooy gën jaa màggi xeet ya ak talaasat ya di yet na xam waaw idi ngir rabbu naa sunu boroom yaktubu dana bind xëynan xëyin mbaa nga ne juróom-ñeenti téeméer moo jaman guddi guñ tomb mooy xëynan ji da nga koy tomb bañ a nekk xaynan koy tomb ba mu nekk xëynan daraja tan ci daraja li man ñeel ka nga xam ne xadintama askanu na lëxoo jëm ci moom ku yàlla may wér ak xéwal yu bare bari lum làmb rekk daj muñ ca muñ ga ca war dafa jafe lool ba mu wax ne mboolem yetti xeeti muñ yi moo ci ëpp daraja moo ci ëpp luñ ciy fay ka ko def ndax ku ko def ñu fay la juróom-ñeenti téeméeri daraja nga xam ne kon noonu la ëpp daraja yaar ya ko jiitu falay sa yaspiru du muñ xalal balaa yi ci balaa illal lës yi ndara ka nga xam ne amana gëm na bil jësaay ca pay ga yàlla teg la balaa ak musiba nga muñ yombut ndax ku wóolu ne ëllëg am na alaaxira am na te ku muñ ñu fay la kooku rek mooy mën a rafetal muñ googu dëgg-dëgg walay sa yasbiru du muñ itam alfataa jam sa fil xaafiyati ci jàmm maalam yekkun li fekk nekkut mu saddiqan di aji dëggal bil jaayati ci aji dikk ja te mooy alaaxira yàlla may la nag wér ak jàmm nga bari xéewal ba loola am rekk daj foofu nag fi la muñ gën a jafe lool lool ndax faaw rek nga gëm ne yàlla am na alaaxira am na mooy tax rek nga mën a rafetal muñ ga nga xam ne moo ci yell te daañu la ko wax léegi na nga cee muñe farrajulu waaja arrajulu kay dëgg-dëggi waay la neexee ne farrajulu góor ga arrajulu kay dëgg-dëggi góor man mooy ka nga xam ne yas biru dana muñ fii aafiyatin ci jàmm wane xamin ak i xéewal ay stof yi fu ñu mën a dikk ñoom xéewal ya kay góor tey góor kay jàmbaar tey jàmbaar mooy ka nga xam ne lu ko yàlla mën defal ci wér ak jàmm ak xéewal du tee rek mu taxaw ca na yàlla bëgge muñ ca muñ ko gën a rafet loolu nag moom lay bëgg wax lu muy doone an laa yekkoona moo di mu bañ a nekk raakinan di aji jeng laxaa jëm ca jàmm jaak xéewal ya wala taxur ruxoo te duñu ko wor lu bari ci muwal yi dañ koy def wala yaxur ruhaa fekk wala taxul ruhoo moo yellu ci béréb boobu walam yëkkunte du nekk mustasilan di aji boyal nafsan bakkan lëfoo ñeel ko fii faraxin ci mbég laxaa ñeel jàmm jàq xéwal ya zamanan ci jenn jamono li an na saa ngir naka lii yejur ruhoo dana ko ñoddi ilaa fitanin jëm ci ay fitna walam yëkkunte du nekk mun xamikan di aji nooru fii laibin ci fo wa fii tanaxumin ak ci ak xéewu mooy xéewlu li faqatil arabi ngir ñàkk aajo ja wa fi hawan ak ci bànneex wa lazzatin ak bànneex wa yarxaate muy sàmm xuqooqa maalihi àqi alalam ja fa yaxwite muy làq an nafa njariñ la dañuy muñe ci jàmm ak bari am am moo di nee na bul jéng jëm ca jàmm jaag am am ba maanaam bul boyal sa bakkan rek ci mbégteeg fox ak bànneex rek ne man wér naa am naa jàmm li ma am du jeex foo toll del bàyyi xel ne am am bi ak jàmm ji li muy bari bari ni nga ko amee tey mën nga ko ne ñàkke ëllëg kon nag nga taxaw temm ci yemale sa bakkan fa mu war a yem teg ko ca yoon wa di ko jàjj foo toll alal ji nga xam ne moom la la yàlla jox itam nga fexe ba lépp la ci yàlla sant ci xeeti àq yi nga joox ko ba mu mat ba noppi nag walbatiku di ko jëmale ci ngërëmal yàlla di moytu dara kenn ca loo xam ne jëmul ci ngërëmal yàlla na moytoo topp bakkanam ci xéwal jaag jàmm ja lu bakkanam laaj rek ci xéwal ak fo ak topp bànneex mu daldi ko koy jox loolu bu ko defee rek mën na koo taxa fooy daldi beew ni alquran ne innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna doomi aadama bu gisee ne bari le na beew da ko yomb nee nañu sax albalaa'u yasbiru xalayhi almu'min wal xaafiyatu la yasbiru xalayha illa siddiq balaa muy lu metti ku gëm yàlla rek mën na koo muñ waaye nag jàmm moom siddiq ku sori ci yaqiin ak gëm yàlla moo ca mën a muñ nee nañu saxaaba yi daa nañu wax naa nun day ban tolloo ci ay jafeñ-jafeñ ak i tiis ak i ñàkk aku xat muñoon nanu ay bin yàlla ubbilee adduna nag adduna yaatu fi sunu kanam muñ dal nuy të su farloo rekk ci lu muy génne xam-xam koy dugal lu muy dugal xam-xam koy jële ndax loola lew na wala lewut ndax boo xësee bari li moom day mel ne boo ragalul yàlla da ngay def ba bari sa am am boobee ne daal di yomb ka ñàkk moom li ci ëpp am da koy jafe léeg-léeg xës am ba noppi nag wéy di giijal da koy faral di yomb ci doxinu àdduna muy fexe nag kon ba du amee nenn nu aay teyit lu mu am rek def ko ci biir ngërëmal yàlla wa minhu bokk na ci muñ xabsul nafsi téye bakkan ba mbaa nga ne tëj bakkan ba fii kasbil xurabi ci fàggu ay jaamu yàlla xan sharaxi tabaxi walis fuqalik jikko almur yi jadi aji wane su al adabi ñaawuk teggiin bay na yaday dil harshi ci diggante yaari loxo yi borom aras maanaam ci kanam boromam mi borom aras rek dafa jàll ci di wax nag ay xeeti muñ yoo xam ne yu mat a fonk la te góorgóorlu ca bokk na ca bakkanuk doomi aadama yàlla da koo bindee fuqale fuqale goo xam ne mën naa tax mu ñaawal teggiin digganteem ak boroomam kon nag mu xam noonu yàlla bindee bakkanam ci fuqale di téye bakkanam di ko yemale fa mu war a yem balaa àgg ci ñaawal teggiin digganteem ak boroomam muñ googu muñ gu jafe la te muñ gu rëy rëy guñ mata góorgóorlu wa sabru ak muñ xalaa taxsiini aadaabin ci rafetal ay teggiin maxallaahi ànd ak yàlla xalaa kawe na jaam bi am na ay teggin yoo xam ne daa dox digganteem ak boroomam te wàññi woon na ca gannaaw ab lim ci ñoom mu ne nag mu muñ ba rafetal teggin yooyee war na ci góorgóorlu lu jafe la waaye na xam ne rek lu jafe lu am njariñ la wa minhu bokk na ca sabru naa sunu muñ xalal infaaqi ca dundule ga bil maali ca alal ja duuna xasiyatil imlaaqi ci ludul ragal ñàkk bokk na ci xeetu muñ nga fexe ba alal ji la yàlla dénk nga di ko def ci yoonu yàlla gannaaw boo joxe farata ci alal ja ba noppi la des te loruwoo ca nga dimbalee ko ña ca loru te yàlla tax bañ a ragal rek te bañ a ragal ne su ma ko joxee kat mën naa am jamono soppiku ma ñàkk déedéet da ngay joxe rek te gëm la yàlla ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu wa huwa xayrul raasiqiin lu ngeen dundalee te yàlla tax yàlla leen koy wuutalal ndax yàlla moom mooy wërsëgal ñëpp ñëpp wa minhu bokk na ci muñ i'taa'uka sag jox ahlal xaqi ñooñ àq xuquuqahum seeni àq turan boole seen li wàccil xaq ngir jëm yàlla muy dëgg bokk na ci xeeti muñ yi feddliku lool muñ ba ko amel àq ku ne nga jox ko àqam ba mu mat moom sax mën naa dem ba soppiku farata di waru gar ndax àq ja nga amel kooka bu fekkee ne ju war la ni ki bor moom dafa diis lool bañu ne bu fekkoon ne nit mën naa dee ay dee yi dee nit ki jihaat ci yoonu yàlla ñu rey ko ca mu dellu jihaataat ci yoonu yàlla ñu rey ko ca mu def ko yoon yoon te nga xam ne benn rey rekk ci yoonu yàlla digg nañ ci àjjana kooku ñu rey ay yooni yoon ci yëkkati baatub yàlla balaa dugg àjjana bu fekkee ameloon na kenn bor faaw mu fay ko rekk dooru dugg àjjana am na xadiisu jaabir ibnu abdillah bu al imaamu ahmad nettali ci musnad mu ne yonent bi nee na bu ëllëgee yàlla day pang mboolem jaam ñi kenn ku ne mel na ko yaayam jure woon nga xam ne bu dee ku duggoon néegu góor sax lañ dindee woon ci sawukaayam day dellu si mel ne mësta jaar ci néegu góor ñépp rafle kenn du yore dara dara sunu boroom dal leen di woo ci kàddu goo xam ne ñépp koy dégg ka sori dana ko dégge ne ka jege dal di wax ca kàddu ga ne man dey maay buur te maay faykat bi nga xam ne ku ne maa warlu fay la lañu la war a fay daldi ne ku bokk ci waa sawara te fekk ku bokk ci waa ajana ameel ko àq na taxaw ma fayul ko àq joojee bala moo dem sawara ku bokk ci waa ajana itam te fekk ku bokk ci waa sawara ameel ko àq na taxaw ma fayul ko àq ja ba mu jot ca balaa dem ajana ñu ne waaw ndegam kenn du fa yóbbaale dara nu ñuy fayee bor mbaa àq ñu ne su boobaa ay yiw ak ay ñaawteef rekk ca la ñuy fayu xantee ku amel kenn te am yiwum ko faye da koy faye aw yiw su ko amul nag ñu jël ci ñaawteefu kookee mu war a na fay te amul lu mu ko faye teg ko ko moom mi war a na fay te amul lu mu faye ka saburi naa ni sunu muñ alal iyaali ca njaboot ga waxtimaali adan ak yanu loro minal jamihi tukkee ci mboole seen fi'lan ci jëf aw maqaalan wala ci wax fa inna fi ayaali naka nekk na ci njaboot ga turqan ay yoon lil jalili jëm ci aji màgg ja jàll màgg na wa addunaaha te gën jaa suufe ci yoon yooyee ihtimaamun moo di ak yittewoo yaa xalilan yow ab xarit bihim ca ñoom mu dellu ci ihtimaam wa alaaha gën jaa kawe seen arrida mooy gërëm ga an rabbina walis sunu boroom maxat tawakkuli ànd ak wakkirlu ga xale ci moom ak zamana ci jëpp jamono fiihim ci ñoom njaboot ga wal awsatu ba gën a digg doomu nag huwa moom al infaaqu mooy dundale ga alayhi moo ci ñoom wama bihi te te mi nekk ci loolu shiqaaxun genn ngaayoo maanaam genn wuute amu ci bokk na ci xeetu muñ gi am solo lool njaboot gi la yàlla booleel nga muñal leen lépp lu bàyyi ko ci ñoom ci lor jëm si ci yow moo xam wax la moo xam jëf la nga jéem koo muñ ndegam ci sa wàllu bakkan rek la yem bu dee nag dañoo xotti ormay yàlla moom war ngaa taxaw temm ci def ca la nga man ba mu deñ ndax nee na ci biir njaboot gi kat mën nga cee amee yàlla na nga cee amee yàlla nag yetti anam la yoo xam ne yemoowuñu am na bu ca féete kaw am na bu ca féete suuf am na bu ca nekk ci digg ba ba ca féete kaw mooy nga gërëm yàlla mi nga xam ne moo la booleeg njaboot gi wakirlu ci moom xam ne rek ndegam moo la téeñal yan la njaboot gi du la seetaan faaw rek mu dimbali la ba nga mën a yenu yan bi kon gërëm yàlla bañ koo xarab ci lim la booleeg njaboot gi te wakkirlu ci moom jàpp ne lépp moo la ko yenul mooy anam ba féete kaw ci nga am ngërëmul yàlla ci sa njaboot anam ba ca topp nag te nekk ci digg bi muy ñaareel bi mooy nga taxaw ci dundal leen topp ci ndigalul yàlla mi nga xam ne moo la digal nga dundal leen di moytu am ba noppi bañ leen a dundal na mu yelle bu ñetteel bi nag mooy bu mu yem rekk ci dundal leen waaye na am ci ñoom yitte bu baax a baax ndax da nga gis koo xam ne yàlla may na ko wërsëgu bare bari ba lam ko sant ci dundale ma ngi koy def waaye taxul nag mu am yitte ca njaboot ga am ngi yitte lu am solo la kon bu la yàlla dénkee njaboot nga gërëm yàlla mi la booleeg njaboot gi wékkil lu ci moom xam ne moo la ko yan te moo lay dimbale muy benn nga dolli ci di leen dundal kem sa kàttan te yàlla tax ñetteel ba nga boole ci may leen yitte te yàlla tax loolu mën nga ci amee yàlla amee ci ngërëmam amee ci tuyaabaam lu dul jeex waxab suka ak sa téye an naf sa bakkan ba xalihim ci ñoom abadan faaw bilal tifaati ka jul sa gestu di kulima jëm ci lépp la nga xam ne ba daa feeñ na ba tey njaboot gi sa bakkan mën na amu bëgg a fénati ñàkk am cawarte ci ñoom waaye dangay fexe ba bañ a gestu rek nañu mel moom daal bu fekkee nañu mel naqari na la waaye ci sa bakkan dong la dara yàlla nekku ca na nga muñ rek téye leen bu baax te sàkku ca ngërëmul yàlla bul geestu lañuy wax ak lañuy def te nga xamee ne yow rek lay naqara ci sa bakkan waaye ajuwul ci xëtt ormay yàlla ndegam daal loolu ajuwul ci xotti ormay yàlla rek moom na nga ko jéem a muñ jéem koo dékku te sàkku ca ngërëm rek wa minhu bokk na ca sabrul mar i muñuk cam sa xan izhaari karamatin walis feeñal karama laxoo ñeel ko waxan ixbaarin ak walis xibaar bil kashfi ca wuññ ga lil qudrati ñeel man man ñu koy wax kàttan bokk na ci xeeti muñ yi am solo lool bu la yàlla bu la yàlla mayee nga mën a feeñal karaama mbaa mu may la man man boo xam ne boo ko wane woon ñu yéem la ca nga muñ rek bañ koo feeñal lu may nag la tax nga feeñal ko yàlla la ko digal wala day dellu ci yëkkati shariha ak dellu nit ñi ci yàlla minhu bokk na ca xab sunaa sunug téye mbaa nga ne sunug tëj an fusanaa sunuy bakkan xan xob bi xamdin wali sopp ak cant xalana kook feeñ na ma a riyaasatin ànd ak kilif téef wa matxin ak kook tagg yaa na biil yow aji xellu bokk na ci muñ gi am solo bakkanub doomi aadama day bëgg ku ko sant bëgg ku koy tagg bëgg kilifteef nekk ci kanam bindeef yi nekk ci gannaawam